mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kuréelu yaatal mbindum alxuraan bu C3S biy taxawu jongante bi ñuy amal jëm ci mbindum alxuraan moo yëgal ñépp rawatina ndongo daara yi ne gannaaw diir bu yàgg bi ñu ajandi woon bépp activité jëm ci amal boobule concours di édition 2020 2021 mu ngi xamal candidat yi jotoon na déposé ne dooraat nañu liggéey bi c 3 mi ngi xamle ne ngir wéyal liggéey boobule liste candidat yi jotoon na déposé daaw rek la jël ci loolu njëkk bi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2021 ngir jël ci ñoom ñeent fukk yi war a jàll ci xaaj bu njëkk bi ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 bi ni'mati rabbika bi majnun onze billahi mina seytaan rajiim ñu nuyu waat leen bu baax a baax di leen fàttali bu leen fàtte bés cloche bi am sunu ay information en temps réel gën ñoo topp gën a topp xibaar yi euh, gën a topp lépp lu ñu leen di indil décortiquer ko décryptage yi ak reportage yeeg grand reportage yeeg entretien yeeg exclusivité yi événement yi lépp li nga xamante ni euh, chaîne bi mi ngi ko indi di Tawfekh Production ngeen ànd ci tawfeex di ko topp ak ñun ci Tawfekh lépp ci Tawfekh la lépp ci Tawfekh la euh, Tawfekh nag bokk ci li taxit sang bu tedd bi santaane ñu wax këru asaka euh, kër googee nag ca dëkk bu sell ba Touba ñu koy lancé euh, di ci woo ñëpp ñi nga xamante nag ñoom ñoo di taalibe yi mbokk jullit yi umma islamique bi yëpp la ñuy wax ndax euh, jullit bu nekk am nga yaqin ak yër ak ak tamit bëgg jàppale sa sa mbokkum jullit ndax l'islam moo ko santaane ndax lii di joxe asaka dafa bokk ci ponk l'islam yi ci juróomi ponk l'islam yi asaka daf ci figurer en bonne place kon dafa war jullit bi képp koo xamante ni ah, am nga koo tane ndax tanante fi am suñu borom rek moo matal lépp dajal lépp waaye képp koo xam ne am nga koo tane as lëf ay la yëwin nga ne ci cof tuuti jàppale ko sa mbokkam jullit dafa rafet dafa baax kon sang bu tedd bi ginnaaw Touba ca kanam ak ñi ci lëkkaloo ak ñëpp ndax ku nekk xam ne gis nañ tubaa ci kanam liggéey liggéeyu dëkk bu sell bu Touba ci la ñuy liggéey tali yaag hôpitaux yeeg social bi donte ñu ngi koy ci def waaye wolof nee na baax suy baax gën dafa teewul tubaab naan quel que soit euh, donc euh, l'allure du cheval il faut cravacher dañuy gën a fas lu mu gaaw gaaw rek ñu làbbale ko donc kon c'est important ñu gën a bàyyi xel mbirum jàppalante kon kër googee nag lii xemmeemteef gi mooy bu noppee dafay nekk structure bu taxaw boo xamante ni lépp lu ko tax a jóg mooy dajale fa yenn euh, koom yi yenn ay am yi nga xamante ni doom doomu aadama yi jëlee nañ ko aslëf ci li ñu am ñu dajale ko fakat xool ñi nga xamante ni xëy na suñu borom def na ne kat seen doode dafa suta dafa néewante ñu jàppale leen ti loolu nag ku nekk xam ne inspiration bu am solo boo demee Arabie Saoudite boo demee ci dëkk euh, yi nga xamante ni mel ne réew naar am na ci liggéey bu am solo bu ñu def boo demee Arabie Saoudite dañ koy def loolu day tax tey jii wax dëgg yàlla ki nga dendal nga am ndékki amul ndékki nga jàppale ko mu am ndékki waaw ëllëg kam dendalaat mu amul ndékki mu am ndékki ka am añ def ko keneen ak keneen mais réew mi day jag waaye réew mi boo bëggee am ñaari oto sa biir kër fukki oto baase ko am ku amut wele bu muy dawale nga am ñetti kër téye ko di ko luyee luyee bu cher bay bëgg a dee nit ñi di bëgg a dee fay location yor fukki kër fukki immeuble nga tëdd sa kër ne faax sa wetu jabar dinaa ataaya ak njar yaakaar yaa ngi yaa ngi ci lu neex da ngay dee benn bés ñu teg la ci brancard jiital la yóbbu la suuli la yàkkamte ñëw jël alal ja jël kër ga foowee ko wala def ci leneen loo ci di defut ci lu baax du la fekki nit ñi nañu delluwaat seen xel yàlla nit ñaa ngi bëgg a sonn munoo yor juróomi kër fukki kër ah nga yokk ko ba mu bëgg a dee yokk ko ba mu cher wala nga dagg ko ay poqus poqus yi luyee ko dem na faax si sa kër gu yaatu ak sa njaboot di lekk ñu weeru dee ñu fay la ko nga jël di ko noose nga yaakaar ne yaa ngi dund nga yaakaar ne yaa ngi ci lu neex yaa ngi àjjan di raay sa biir billahi wallahi bés na ñëw ñu teg la ci barankaar génne la kër gu rafet googu ak lal bu rafet ba ak oto bu rafet ba dugal la ci euh, dugal la ci corbière yóbbu la nañu delloo si waat yi delloo si xel yi gëmaat yàlla dimbalante nit day dimbalante mënoo yor fukki téléphone yoru ko am ko yoru tub ma ab samsung bu baax te nga naan da ngay ab jullit nga da ngay woote jullit bu jumaa ji ñëwee nga jiitu fa àjjuma kenn du fa jiitu bu koor gi ñëwee nga yendoo woor dàqa woor ñëpp jaamu yàlla bokk na ci dimbalante nit ki xiif nga jox ko mu lekk moo ëpp yool ca yàlla tabax téeméeri jumaa yoo xam day fees dell ak juróomi waxtu ñu fonk dimbalante togg li ngay togg nga tuuri ko betti ko ci mbedd mi di jaay ne yow kat démb ginaar nga reere am koo xam ne démb ci guddi soom bi sax amu ko bu mu taal loolu baaxul yonent bi salaa salaam woon na sax boo dendeeg nit kër mu nga togg sax xat gi di koy dugg boo mënee yokk ñeex ma tànk ko ca ñeex ma mu mos sax mu ëpp tiyaaba dëkkandoo àq la ngay togg xat gi di ko de waaye léegi ngay togg di rosi muy fës xeeñ xet gi dem fu nekk fekk ki nga dendal démb ndeysaan billahi wallahi añu reeru ndekkiwul nit ñi ni ñu dimbalante loolu nag philosophie boobu la Serigne tax Mbacké di doxee di koo xamante ni wax dëgg yàlla gouvernement bi mu tëral Touba architecture bi muy def Touba ne ah xale yi war nañ leen gunge ñu jàngi jàng mu dëppook jamono tënku si l'islam tamit waaye dëkk bi war nañ ko defar ci yoon ngeen gis ci waa Touba ci kanam ngeen gis université bu mag bi ah war nañoo fexe kat ba wàllum wér gi yaram gën a sotti war nañu fexe ba askan bi ñu dimbali tey nag mi ngi ci akasa nit ñi nag di génne aka li nga xam ne moo di asaka bi di ko génn di ko dajale di ko joxe liy tax musiba di am da ngay gis ku yor place mu toog balaa déwén mu tàkk jëpp ñu naan wuy fu mu jëm fa jëm xam na ko denc fukki million ci place boo xëyee yow ka la fay gardeel sax doo ko jox cinq bu mat ah di exploiter nit ñi moo baaxul wala denn loo muy bëgg a dee nga yori karkar di dawal yëngali caabi di kasang-kasang yaakaan yaaray gaynde gi di foo ci lenn loo fi def lu lu baax di la jëriñ ñi ni fi ëppoon alal ñëpp déggatoo ci kenn ñi ni fi ëppoon xam-xam déggatoo fi kenn réew mi nag da ngay jéem